sa xel dem na ci sëñ Moustapha mi jëkkëre xalifa Xaadimu Rasul jële raay bi Jurbel yóbbu ko Mbacke sa xel dem ci kan sëñ Fadilu sunu baay ba ak sunu baay Cheikh Abdoul ak sunu baay sëñ Bachiru ak sunu baay sëñ Soaybu ak sunu baay sëñ Murtada ñooñu ku ci ne fekk nga inauguration bu xam ni sunu borom tabaraka wa taala yaa ca tombe bii nag ki ci tombe mooy ci xam ni ku ma saan gis bàyyam rek doo ko laajte sax da ngay wax ni ah kii mooy kan ndax lan ndax ya da ko yàlla meloonoon ci daraja na meloon ci taar na meloon ci xam-xam boo yeggee nag ñu la kii mooy sëñ Basiru doomu sunu maam Xaadim Rasuul doomam ju baax ji sëñ Muntaxa moom ci boppam nag ñëpp xam ko xamoon magam njëkk sëñ Moustapha bu sëñ Bassirou ci lan ñoom ñaar nu yar seen baay yar leen ci lan ci ragal yàlla ci lan ci bëgg jullit yi ci lan fab seen maam Xaadim Rasuul teg ko ci kaw sëñ Muntaxa yaram tegginam bi mu laata dégg xalifa gi ak xam-xamam ñëpp d'accord nañu ci ak ragal yàlla am waaye nag moo ci tombe ci yéen olof yeneen ni tombe moo waral ay gaaf Sidi Maxtaar yal na yàlla yokk leeram sunu mag ja sunu sëriñ ba sunu xarit ba baax lool ragal yàlla lool bëgg lool maam Xaadim Rasul ak baay bi Sëñ Baara ak maam Sëñ Baara toog ci xilaafa gi posé premier pierre waaye keroog bu mu koy posé dafa ne ana Sëñ Muntaxa booba nekk mu ngi nuy woon tegtal ni Sëñ Muntaxa moom ci boppam inauguration bii le président de la République, le gardien de la Constitution, <laughs> l'homme des grands projets de l'État, di ki Macky Sall Sëñ Mountakha ci boppam mooy ci dëgg-dëgg mooy mooy def inauguration Ila Touba lii nag kenn moom ko jullit yëpp ko moom ak képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah di ñaanal Sëñ Mountakha yàlla may ko wér lool ak ki rakkam yëpp yàlla may ko gudd fan lool ak jullit yëpp yàlla may ko wér lool ak ki xam ni mooy porte parolom nu tudde ko baayam muy doomu ilimaanu ilimaan ya kër sunu baay alxaaji abdul aziz li xaamaloon ca jumaa maam xaadim rasul di sëñ bas abdou xaadam noo ngi ñaan ak jullit yépp nag yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér sëñ muntaxaa liggéey bi nga xam ni sos na ko ca tuubaa ko yeggale ak sagoom ba sumb leneen yeggale ko ak sagoom ci darajey kan darajey baayam sëñ basiru darajey maamam xaadim rasul daraje ak daraje sang bu tedd ba tëdd ci mbedd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ Muntaxa julli yëpp ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan may wér li nga ci sa kër maam xaadim rasul yan la ko yàlla defal ci darajey kan sa darajey maam xaadim rasul